asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo baaxoo ñoo baaxoo ànd ak ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne kuréeyu liggéeyal ku tedd ñoo koy amal di ko waajalee bis bu tedd bi ñu jublu te mooy gàmmu gi di waxtaan yu am solo yoo xam ne fàttalante la ak jàngat ak càmbar dundug jëmm ju tëdd jooju nga xam ne moom mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jàngat ko ci anam yu bari ak wàll yu baree bari ci biir conférence yooyu nag tey ñuy ànd ak yéen ci waxtaan woo xam ne mu ngi jëm ci tolluwaayu tagg yonent bi sallallahu alayhi wasalam ci mbindum Serigne Touba alboodul madiixi fi chaaril xadimi tolluwaay bi nga xam ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko ci biir mbindum Serigne Touba maanaam nan la Serigne bi jëmmalee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu war ci ànd ak mbokk Serigne Saalihu Mbakke mu ñu ci ay leeral indil ñu ci ay xam-xam boo xam ne dañ ko yóbbaloo. incha allah kon dañuy jox Serigne Saliou mu nuyoo ñu jublu ci waxtaan wi bismillah aouzu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim salaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi tawi ridwaan wa tamkin amma baad ginnaaw sant yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu mbooleem mbokk ñi ñu teewlu ci fun mën di nekk adi jiital ci nuyoo bi alxalifatu am di tariqati almuridiya seex muhammadul muntaqa ayadahu llah wa nashara di nuyu mbooleem mbokk yépp di jiital ci nuyoo boobu euh, kuréelu liggéeyal ku tedd ki di nuyu itam bu baax suñ xaadim yi nga xamee ni moom lan siqal jotaay bi nim mu ko ñëw fi ngir waxtaan lenn ci eh, dunduk yonante bi alayhi salaam te jaare ko ci tàgg gi nga xamee ni siñ bi moom la ko tàgg tam nekk loo xam ne eh, warteef la ci képp koo xam ne ab jullit la wala képp kuy nit rek ndax yonante bi alayhi salaam eh, képp kuy doomi aadama al insaani wal basariya ñëpp ko ameel njukkal ñépp ko war a delloo njukkal kon ngir njëkkantee waxtu wi rek xam naa nuyoo bi dañ koy eh, tënk foofu di ñaan suñu borom defal ñu tawfiix ba lépp lu ñu ci wax rek mu nekk njariñ ñeel jullit ñëpp jërëjëf sëñ Saliou kon mbokk yi ni ngeen ko déggee rek ñu ngi fii ci waxtaan yu am solo yi kuréel bi ko tàddike di amal waaye ànd koog waa muxaddamatul xidma ak seen télé bu mag bii di GMT TV kon Serigne saaliwu dañuy ñëw ci lan mooy tagg bu ñu waxee tagg mooy lan almadaha moom mooy lan ban maanaa la amee ak jëmmi sëriñ bi naka la gisee tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñëpp ñoo ci yam aw gisin aw gisin ndax moom ñëpp ñoo ci yam aw aw taggin wala wala maanaam naka la sëriñ Touba gisee tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf suñu xaadim ci laajte bu am solo boobu laaj bu am solo boobu tagg buñ koy wax di sifatul am moo rek kañ nit ki ci li nga gis ci moom ci ay melokaan ba ay jikko yu baax kon almatx buñ ko waxee mooy kañ nit ki maanaam wax nit ki ay jikkoom yu baax ak ay melo melokaanam yu baax ak ab bindam ak yu mel mooy tagg waaye nag almatx an nabi nabawi ba al madih an nabawi buñ ko waxee moom day gën a yaatu te mooy kañ baat wax yonent salaam melo yi nga xam melo woon na ko jikko yi nga xamee ne ame woon na ko waaye wax tamit gane gi àdduna ma fi mu jaar ak kiimtaan yi ci aju wax ay mox ji saatam wax tamit ay xasa xare yi nga xamee ne doon na ko def kon tagg yonent bi alayhi salaam ni ko waxee mooy gën a yaatu day làmboo lu baree bare ci noonu ñu ko waxee loolu lépp delloo ci njàngalem siñ bi dañ koy gis ci jës bu bi mu tàgg yonent bi alayhi salaam fi mu njëkk a wax mooy mawlid nabi tàmbalee ci njëkk muy ñëw yow ma alastu bi rabbikum salli ala wasalli salli wa salliman ala man qad ajaaba bi balaa yow ma alastu awwala qabla say takallumi jóge fi ñëw wax ci mawlid bi la ca ajoog njëkk muy am sax wala bi mu amee ci guddi wala ca xew ci ay kiimkat kiimtaan sataayi na wulida nuurun asima qad yara bi xusuur xaysara man kaan fi ummil quran wa kan suuxu bi taran li ree bi baree bare baree bare indi na ko ci ci guddi googu de ngir tamit Sëñ Tuubaa tagg gi mi tagg yonent bi tamit bu nuy xool wuut na lool ak lan mi ngi noonu loolu yaakaar naa dañu ci waxtaan mooy li ràññeet li sëñ bi ni muy taggee yonent bi alayhi salaam ak yin mi mu nekk lu am solo loo xam ne Euh, dana la euh, tax nga xam siñ bi dimension bi mu tolloon moo xam yo mystique la moo xam dima adabiye la moo xam ci ruux yi la ci digganteem ak yonte bi alayhi salaam mu nekk tagg yoo xam ne day wuuteeg lool li nga xam ne miinoo nan ko ci euh, fànn boobu muy al fànn fànn al madih an nabawi al fànn boobu nag fànn la boo xam ne nekku ne arab yi ñoo ko moom ndax yonte bi alayhi salaam jullit yi yépp ñoo ko bokk kon fànn boobu ki dees ko tudde fànnul arabi waaye dañ ko war a tudde fànnul islaami ndax euh, mbir la moo am képp kuy ab jullit ak làkk woowu ku mën di defee ndax tàggu ni ko mooy kañ maanaam wax jikkooy nit ki ay melokaanam ay ay ay ay ay ay ak dundam ak yu mel noonu kon loolu bépp làkk bu ñu ko mën defee rek loolu day dugg ci almatxu annabawi donte nag ni ñu ko miine mooy def ko ci luqatul arabiya euh, moom lan xam waaye ba te def ko ci way tamit moo gën a siiw waaye tàgg ni mënees ngaa def ci wisar ndax bu ñu xool suñu bi wax na am daxu bin nasra wa nisaami maa dumtu qaadiran alal kalaam mm-hmm. kon danaa ko dakk tagg ci way waaye danaa ko tagg ci wisar kon tagg yaa ñaar yëpp man na ko doon nag ci way lan ko gën a miin ndax way lim làmboo wala jëmmi euh, xasaay yi nga xam waaye am na ko te wisar ndax way mooy gën a mën a jeqi sentiment yi nit ki moo ko gën a mën a yëgal gën a mën a jeexital ki moom xam naa kon ci tënk ngir bañ guddal jërëjëf sëriñ Saalihu leeral gi am na solo euh, ni nga ko waxee rek bu nga waxee almadaxa surtout almadaxu nabawi mooy kañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag jaar la ko ci jaaruwaay yi mu jaar euh, mooy laataa muy feeñ jamono ak bi mu feeñee ak ba bañ ko yónni ak bañ ko yónnee ak la ca xew ci ginnaaw mu mel ne it leeral nga ne tagg du ci waaye rek lañ koy defee donte ñun tomb bi ñuy jàngat tey mooy tagg ci way gi ko Sëriñ Tuubaa doon def waaye nekkee tagg dinañ ko defee ci ci weesar wala geneen anam kon euh, jàpp nañ ne képp kuy tagg ak koo mën a tagg am na lu tax ngay tagg kon laaj bi rek mooy euh, Sëriñ Tuubaa lan moo ko euh, poussé ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa koy tagg ngir tagg gi ñu xamoon du ko tagg ngir am am dara ci moom ay ay ay ay ay xéewal dërëm yu mu am ci moom wala laneen baneen bëgg-bëgg la la la la ci am. waaw jërëjëf ñu xaarim ci laajte bu am solo boobu euh, sëñ bi bu ñuy xool tagg mi tagg yonante bi alayhi salaam euh, daa jàppan sax moom lu war la ci moom boo xoolee ak dundam dakaa def euh, ñaari xaaj ni mu ko xamee at mi salaatu si tamit mat si taati ba tam xati saay dakaa def ñaari ñaari xaaj lakamtidaahi li jumaata saaniya min almuharrami kafaani gaaniya xalin tasamtu salawaati mi rajul xalbi seen xujjati dahban yuntajab xam kon siñ bi bu xool ak dundam li ci ëpp da koy jagleel tagg yonante bi alayhi salaatu wasalaam te loolu xëy na buñ demee ba ci waxtaan wi dana dana dana dana dana dana nekk lu gën a leer waaye tamit bëgg gi mu bëggoon yonante bi alayhi salaam ak ni mu jeexe woon ci moom loolu taxoon na moom mu gis ni tagg yonent bi day warugar day warugar maanaam day nekk loo xam ne munta ñàkk alaya daynu matxi wa salaati luhu li xubbihi ilal wafaati luhu li xubbihi kon daa tagg yonent bi ci moom ni nga xam ne boo amee bor euh, fay gi noonu la lay kon loolu la gisoon yonent bi taggu ko noonu la mel waaye te yëmu gis ne wépp tagg wu am solo wépp tagg wu rafet wépp tagg woo xam ne critères yëpp yu ni nattee tagg al madxu bi bi maana al arabi loolu lépp day jàpp na yonte bi alayhi salaam moo ko jagoo moo tax maanaam daaxa sanaaun lam yakun madxan nabi is lam yakun li xayrihi min manqabi kon gis nañ ni tagg yonte bi alayhi salaam bu dee tagg la loolu yonte bi salaam moo ko jagoo euh, ci tagg wu rafet te loolu maanaam gis-gisin boobu mu amoon ci tàgg yonent bi alayhi salaam day mel loolu ko yàlla fayee moo tax boo xoolee al Jóob si Ibrahima am fu mu koy wax naan ko fa kullu matxin balixin xiila fi rajuli fa anta saahibuha yaa ayyuha rajul bépp tagg wu am balaax wax nañ ko ñu ne réew siñ bi yaa ko jaww kon day mel siñ bi euh, taxawaay bi mu amoon ci tagg yonent bi loolu ko yàlla fay lan mooy tax muy tàgg yonent bi kenn ku ne xam ne mbir mu man di doon nit ki bu koy def Euh, am na lu ko ci poussé ñu koy def ay addawaafian loo xam wala albawaais loo xam mooy yan nit ki mooy poussé nit ki ci sulooku bu mën di doon dana comportement bu nit ki mën a comportement am na lu ko ci lu ko ci poussé euh, moo tax bu ñuy xool ba ndeelu ci euh, xalaat kay am philosophe buy wax muy Spinoza philosophe Hollande Hollande la day wax ni nit ñi ñàkk xam gi ñàkk xam sabab bi leen di poussé ci mbir moo tax jàpp ne am nañ liberté ñëw fekk nit ki lu mu mën di def rek boo xoolee ci dëgg-dëgg moo xam xam ko moo xam xumu ko am na lu ko ci poussé am na benn xaw benn fort bu moo xam bu làqu moo xam bu fi boo xam moo ko poussé ci mbir moomu nga xamee ne moom lay def sëñ bi loolu bu ñu xoolee ci ay baytam bari na yu mën a wax yoo xam moom mën nañoo jàpp mooy euh, li ko yóbbu ci euh, tagg yonent bi alayhi salaam waaye boobu euh, biñ ci tànn gën a wax yu laaj mooy alxubb maanaam bëgg bëgg gum bëgg yonent bi salaam mën noo jàpp mooy euh, dawaafin bi ëpp solo bi gën boo xam ne moo poussé siñ bi ci tagg yonent bi alayhi salaam euh, daani ila matxin nabi xubbu saatihi xubbu saatihi kon man nañoo wax li ko poussé ci tagg yonent bi mooy bëgg ko yaquudu nii shawqi wa xubbul Mustafa lahu euh, lil matxi wa sabbi waaw loxo li yaquudin shawqi wa xubbul mustafa eh, bil matxi wa sabbi kon li jëmmi wala lil matxi wa sabbi maanaam li nga xamee moo ko puus yonte bi mooy bëgg gi nga xamee ni moom la ko bëgg te loolu tamit day am rapport bu baax ak matxu ak tagg ndax damaa jëlale eh, tàgg gi dox diggante siñ bi ak yonte bi xam daa nekk loolu alaaqa ba la ba am lu bu dee ko féete ko waaye alaaqa bi du diggante nit ak nit mais alaaqatul maadiya sax day waral nit ki di tagg moroomam ndax boo gisee arab yi nit ki boo bëggee nekk ab saayir boo bëggee nekk ab waykat na nga fexe ba bëgg ndax boo bëggee sentiment yi loolu moo lay poussé ci tagg ko kon bëggeel gii nag boo ko te bëggeel gi ngay wax boo dee siñ bi tagg mi tagg yonti mi tamit nekkutoon te kay tagg ngir wut alal bàyyi mel noonu ndax sax loolu wax na tagg nit ngir wut alal sax ci histoire arabe ki tudd naabixa mooy waykat bu siiw naabixa azobiyaani moo ko njëkk a def njëkk loolu arab yi daan daan dawuñu tagg ni ngir alal daan daan tagg di bàkku di wax seeni famille seeni jaloore seen yu mel noonu la daan tagg kon siñ bi nag bi mu ñëwee moom gis na ni tagg yonte bi alayhi salaam da koy tagg ngir bëgg ko ak yeneen i mbir yoo xam ne mën nañ ko ciy tudd waaye ginnaaw dañuy njëkkantee waxtu wi mën nañoo yem foofu waaye bari na ay mbir yoo xam ne mën nañu mën nañ ka génn ci dund si jàpp ne mooy mbir yi nga xam moo doon tax sëñ bi di tagg yonte bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Saalihu am na solo kon nekkee sëriñ Tuubaa tëggul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir lenn dul ngir bëgg ko donte waxee na ko waxin yu wuute waaye lépp bëgg rek lay firi bëgg ak jeex ci moom takk moo tax mu mu mu jagleeloon dundam gépp tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ni mu ko waxee xaaj euh, ak dundam wala at mi genn wàll gi mu koy muy julli ci moom beneen wàll gi mu koy tagg salaatu sitta bi ma def sitta bi ma def mm-hmm. kon loolu mooy li ko posé woon ci muy tagg yéen soo salaam ak it mu waxaat dama ni ilaa madaxi nabi xubbu saatihi mm-hmm. maanaam li ko li ko yóbbee mm-hmm. mu koy tagg li ko poussé lenn rek la mooy bëgg gi mu bëgg jëmam ju tedd jooju kon euh, bu ñuy wax dañ naan rek bëgg ko rek moo tax mu koy tagg waaye leneen taxul kon euh, ki nga xam ne li tax mu koy tagg pëgg rek la bu raxul leneen wax ko ci waxin yu bari ak yu wuute kon am na yoo xam ne moo ko ràññile ak ñi ci des am na ñoo am wa wayam taggin wi muy taggin du am na ay majazaat yoo xam ne moo ko wuutaleeg yeneen yeneen xeeti tagg yi waaw ni nga ko waxee rek noonu la bu nekkoon mbindum siñ bi danañ ci gis ay yu baree bari yoo xam moo ko wóotaleeg yeneen tagg yi mu miinoon ci tagg yonte bi alayhi salaatu salaam te lool bokk na ci bu ñuy xool mbindum sëñ bi tagg yonante bi du ko tàmbalee ci tàmbalikaay yan miinoon bu njëkk araab yi di ko tàmbalee seen tagg muy xësal muy xësal ba jooy ci gént ba fàttaliku say yu yàgg ba yu mel noonu almuqaddamaat al talaliya ba almuqaddamaat al xësaliya loolu sëñ bi eh, ay tàggam xool du ci am te loolu sax moom da koy waxal boppam ne xayyabtu an saami anit taxasul bi dimenin li mati xayri mursali ak xayyabtu an saami anil fuduli al yowma lillahi wa li rasuli ba tey jaawartu rabban kariman saana li xalimi bil mustafa xan laxal aliyaa i fasanadi laxal aliyaa fasanat da ciy junj la naabee waxoon yaa daara mayyata bil aliya if sanadi aqwat wa taala alayha saaliful amadi mu nekk ci diiwaanu naabixa boobu ci sonra al kon moom bi tagg yonent bi alayhi salaam loolu mooy muqaddimaat yooyu du ko def xëy nag mën nañoo gis ci misaalu mel ni Ahmad Suleyman Ahmad Suleyman bi sarfi hamaziyaati kay ma taquuda si maam yi di mel ni foofu day mel ni day taa def li tudd xësal waaye loolu ni kudd xësal bin xam ci ci ci adab al arabi waaye xasal boobu euh, ne na kaa bañ tudd xadab dañ ko tudd al xasal al suufi ndax ñoom bu ñuy wax ay affaire ay salma ay lubna ay euh, xeeti turu yu jigéen yooyu ci dëgg dëglu kinaaya la kinaayatun ani dunya ak malasaati maanaam ki dàkkantale ci àdduna mm-hmm. ak neex neexi àdduna ak lépp loo xam ne day mën a dox diggante nit ki ak boroomam ñoom bu ñu waxee loolu loolu lañ maanaam yenn yenn saw na lay laa naa nga bi suñ bi waxee ci xoqal bukka xam kon sax bu bu waxee eh, yu jëm ci yu mel noonu jubluñ ci dëgg-dëgg eh, lu jëm ci mbirum matière waaye dañ ci jublu kinaayat ci lépp loo xam ne mooy dox diggante sëñ bi ak maan diggante nit ki ak boroomam waaye bu ñuy xool tamit jëmmi eh, yooyu nga xamee ne mën nañu jàpp ne moo wóotale diggante sëñ bi ni muy tàggee yonante bi alayhi salaam bokk na ci ci biir bi tagg mi tagg yonte bi da ciy dugalaale saxaaba yi da ciy dugalaale saxaaba yi fu mu toll yaa xaadimal muxtaar laa bu saxbahu wa man yansahum fal matxu matxu muxataw xam gis na sax tagg yonte bi alayhi salaam balaa mën a wér balaa mën a nekk tagg bu am valeur faw nga dugal ci saxaaba yi te loolu day dellu ci bëgg gi bëgg yonante bi alayhi salaam bëgg ko ba lépp lu tax ci yonante bi alayhi salaam loolu da koy bëgg te loolu bu ñu ci biir waxtaan yaa na dana ci waaye ba tey bokk na ci mojisa maanaam mu may saadi yooyu mooy saa buy tagg yonent bi da ciy bool di julli ci moom saa bu tuddee yonent bi alayhi salaam ak lu mu xat-xat faaw doon julli ci moom xam kon boo jàng ay matxu nekkul tagg kese waaye da nga ci am yoolu julli te kenn ku ne xam ne yonent bi alayhi salaam julli ci yonent bi alayhi salaam tuyaaba ji nga xamee ne am na ko waaye ba tey bokk na mu jëmmi mu mayi saadi yooyu mooy saa buy tagg yonent bi alayhi salaam mi ngi ciy waxaale Euh, may yi nga xamee ne suñu borom may na ko ba mi ngi ciy junjuwaale euh, rapport xalaaqa ittisaal bi dox diggante ak moom muy ittisaal ar ruuxiya mm-hmm. ku ko tasqiini biha saa busharatin wali xufa faydan ax jalal baxra wal wabla euh, mooy kaasi leer yooyu nga xamee ne miin ko ci mbirum tasawuf ak samitu wajitul baxra fil baxri xaadiman ak yu mel neen yu baree antal karim anal xadiimu daxra mu fii ka zanaa'i yu baree bari yoo xam ne euh, da koy day junju junjul alaaxa bala euh, taxawaay ba euh, fi mu toll ci di yonte bi alayhi salaam waaye bokk na ci yooyu tamit mooy buy tagg yonte bi sentiment yi muy am ci moom day nekk dëggu sidqul saa'ir maanaam du nekk sentiment yoo xam ne day day wax nii rek ngir lu neex waaye day nekk lu dëgg ci moom madaxtuhu madax xubbin saadiqin xubbu saadiq maanaam kon bëggee gi bëggeel gi nga am ba tax mi tagg yonent bi alayhi salaam day nekk euh, mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu dëggu la waaye bokk na ci yooyu tamit bu ñuy xool euh, mooy ya maanaam yonent bi alayhi salaam bu koy tagg la mu koy tagg day nekk lu am du nekk loo xam wax ni da koy fent baa da koy da koy jeeñee da koy imaginer di ko wax waaye day nekk lu am ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu nekk lu jafe ci tagg ñu baree bari bu ñuy tàgg dañuy tàgg ngir man lu bari seen image da ngay imagine di loo xam ne am lay doon ca dëgg-dëgg ca kan yi tàggal am na ñoo xam dañ dem ba àgg ci sax ci àll di teengal di wax loo xam ne ci dëgg-dëgg amul xam nga bu ne xool Abu Nuwaas am fu muy wax dëkk mi te naan ko wa axafta ahla shirki xatta annahu taxaafuka nutfu allati lam tuxlaqi yéefare dañ laa ragal ba mën ni ñi nga xam ne bindagun lañ sax dañ laa ragal xam lu amagul lu amagul mënta nekk lu ragal waaye bu ñu xool eh, ak yu baree bëri yoo xam ne bu ñu delloo ci histoire araab yi ci seen tàggee dañ koy gis mooy alxulu te alxulu dañ kaa bañ ci balaaxa ni mu baalaxa baax na mu baalaxa ci balaax bu ñu koy jàng am na bu nangu am na bu nanguwul xulu bokk na ci teengal bokk na ci nga xam ne nanguwuñ ko waaye bu nu xool loolu siñ bi da koy firndeel ci waxam day wax ne madaxtuhu muddata ahwaamin bila xissin xidmati bihi balaa tàgg naa ko ay at bilaa xis kon day mel ni tàggim ko tagg day nekk loo xam ne day am waaqan ya ci waaye tamit day nekk loo xam day sori ci lépp looy am day xulu maanaam luy lépp loo xam daal dañ koy mën a mën a mën a mën a mën a jàmbaaraam ci tagg yonent bi alayhi bu ñuy xool ci taggu siñ bi loolu duñ ko duñ ko ci gis kon moo tax euh, yu mel noonu daal mën na ko cee jàpp ci mu maye zaat yi nga xam doxoon diggante tagg siñ bi ak euh, yeneen tagg yi mii noonu ni nga ko waxee rek Sëriñ Tuubaa ni muy tàgg yonent bi sallallahu alayhi am na ak wuute lool. Mm-hmm. ak yeneen bind yi nga xam ne danañ ko faral di gis. Mm-hmm. Euh, comme ni nga ko waxee bëgg gi mu ko bëgg. Mm-hmm. ak jeex gi mu jeex ci woon tàgg. ba bu koy tagg di ci dugal yeneen yoo xam ne du tàggu kase. am di julliwaale ci moom. di nga xam ne da ngay jàng tàgg gi mu tàgg yonent bi. neex gi muy neex. waaye ngay amaale ab yoon. yoonu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, waaye nga nga wax lu am solo ci ne bëgg gu dëgg la ciy feeñ dañ naan la booy tagg rawatina ku baax mm-hmm. lépp luy lu baax mën ko askan mm-hmm. comme di mm-hmm. waykat bi di wax ne wansub ila zaatihi ma sita min sharafin wansub ila xadrihi ma sita min azim yonte bi lu la neex ci lu baax lu la neex ci ko ci moom boo ko tagg waaye nag euh, donc loolu mooy lu war a am waaye Sëriñ Tuubaa moom da koy def ànd ceeg nag bëgg gu dëgg alxabu saada kon loolu mbir la moo xam ne mhm. ràññale na ko ak yeneen tagg yu bare bari mhm. kon sëñ Saliou danga danga ñuy leeral rek ci eh, yan jubluwaay la Cheikhul Khadim am ci tagg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yan agaraat maanaam yan la am ci tagg Yonent bi sallallahu mhm. ci laajte bu am solo boobu xam naa loolu buñ kay xool ci mbindum siñ moom dana bari lool lool lool waaye nag dañ ci tànn yenn rek indi ko bu ko defee ngir mu nekk exemple ci exemple ci mbir mi li ñuy waaj a wax loolu bokk na ci xet ma maanaam xidmaal yonante bi alayhi salaam ndax sëñ bi moom niñ ko xamee léppam bi mu jaayante yonante bi alayhi salaam ba bi ñu koy mujjee gis day dugg ci xidma yonante bi alayhi salaatu wasalaam mu dara muy wax muy jëf muy pas muy lu man di doon day dugg ci xidmaal yonante bi alayhi salaatu wasalaam xidma googu bokk na ci di ko tagg ndax euh, tagg nit mooy wax ni ko woon ay jaloorim wax ay baax baaxam kañ ko te loolu euh, xen nekku maanaam euh, xen ma gënu ko rëy war bu ñu xool si ñu wax ne yaa akramal inni maadihun laka ma axyaa bi matxin wa tabbin bil qasidaati yaa akramal xalqi bi matxin wa tabbin qasidaati di ngi dund day liggéeyal Yonent bi salaam ci di ko tagg waarif bi xurmati Mustapha man shirtu xaadim woo bin nazari wan nazmi sajxan summa misaana xam kon jëmmi yonte bi alayhi salaam takk gi nga xam moom la koy dagg daka jàpp di ko jublu ko ci liggéeyal waaye mën nañu jàpp mooy di tagg yonte bi alayhi salaam ngir jubloo ngir jubloo wane ay ngëneelam te loolu lay dugg ci xeetu woote daawa yaxdu masaayaaka allazi lan teha lahu madihi allazi alzamtuhu nafsa nafsa bi saayi loolu day dugg ci woote bi ndax euh, ki nga tàgg di wax ay ngëneelam di wax ni ay melokaanam loolu euh, ki kay gis dana ko xeemem loo kii kan la te xeemem loo googu ko yóbbu ci gëstu kii kan la te bu gëstoo rek xam te yonent bi alayhi ku ko xam rek bëgg ku xam ku ko bëgg rek faaw nga euh, jariñu kon loolu mën nañoo jàpp ni bokk na ci yooyu mooy maanaam jëmmi daawa mooy woote waaye ba tey bokk na ci yooyu may wax siira yonte bi ala ay jaara ay jaar jaaram euh, di wax yonte bi alayhi fi mu jaar te loolu buñ koy xool ci gis bu dañ koy gis donte da koy indi bi yi man donte da koy junju waaye boo xamee siira euh, lépp lu wax rek boo demul ci téere yi euh, da fa gis te loolu bokk na ci li gën a yéem ci mbindum siñ bi maanaam da fekk lom boo doon di ci téere yi siira dañ ci wax lu baree bare bari ay ay paas yu baree bari waaye bu dee siñ bi nag moom da kay tënk ci baat yu gàtt te loo xam lépp loo xam ne am na ci njariñ dana ko ci indi kon loolu nekk lu am lu am solo loo xam ne mënees na kaa jàng ci ci ci ci ci ci mbir ci mbirum siñ bi ba tey itam bokk na ci yin jàpp ne mooy tax siñ bi di tàgg yonte bi alayhi salaam ñu ko doonte bari na waaye bokk na ci yiñ ci mën a tudd mooy jihaad tag gi mi tàgg yonte bi alayhi salaam da ciy jublu jihaad ndax xam nga xasaan ibnu thabit radiallahu anhu miinu wuñ ko ci gàddu jaasi comme ni miinu ali waaye li ñu ko miin mooy tagg yonte bi di wax ay jikkoom di tontu tontu tontal yonte bi alayhi salaatu wasalaam ci ŋaaññi ko yéefeer doon def te tontu yooyu mu doon ko def sax yi yonte bi alayhi salaam ko ci wax naan moo gën a tar ci ñoom jaasi kon wane ne ngir force baat maanaam jimmi doole ji nga xamee ne tagg amee na ko te loolu tamit juraloon ko yonent salaam gàddaloon ko gàddaloon ko àjjana ndax am na ku mos a ŋaañ bi alayhi salaam moom xasaan mu tontu ko ne xajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa indallahi bi ne ko ne ko jazaauka indallahi aljannatu ya xasaan kon ci tagg yi nga xam ne moom la ko takk ci loolu la ko yonent bi alayhi salaam gàddule gàddule àjjana kon sëñ bi tamit te kon loolu jihaad la ndax mi ngi mi ngi mi ngi leeral mi ngi wax jikko yonent bi alayhi salaam mi ngi euh, wax ay melukaan mi wax ay jaar-jaaram sëñ bi tamit day tagg bi ngir loolu ngir jihaad lillahi hamdi wa lilmaahi nabi midahi falhamdu walmathu asiyaafi wa armaahi asiyaafi wa armaahi euh, ak feneen fu muy waxe naan am na feneen fu muy wax naan madaxta rasulillahi madhan mudammiran aduwi madhan mudammiran aduwi kon tagg gi nga xam moom doon tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, bokk na yim ci jublu mooy jihaad ak noon yi bokk na ci jublu mooy ko waxee woon rek te nekk lu am solo euh, lu fees delleek njariñ xam naa yooyu sax bare na bu ñu ci mënoon yu bare bare bare waaye nag dinaa dañ njëkkante waxtu yu moo tax xam naa mën nañoo taxawlu foofu ci laajte boobu hmm. jërëjëf Sëriñ Saliou ci leeral yu am solo yooyu nga indi ci euh, jubluwaay yi Serigne Touba am ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm. muy muy muy yu baree bari mm. yoo xam ne euh, lépp dafa la moo njariñ mm. waaye it yi ci gën a fës rek da nga leeral ko moom mooy ngir xidmal ko da koy da koy tagg ngir ngir xidmal ko mooy ngir liggéeyal ko kon moom tagg gi muy tagg yonent bi da ci da ci yéenewaale ak liggéey liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mu bokk ci wane ay ngëneelam muy lu am solo ndax eh, Serigne tubaa kenn ku ne xam na ne mission bi mu amee. Mhm. mu amee woon tamit ak tajjit. mooy mhm. yeesal sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, loolu bokk na ci yu koy jàpp na yu koy yombal. Mhm. mooy tag bu ñu koy tagg di ci wane ay ngëneelam ngir ñu ñu xamee ko. ba ba ba diine gën a yaatu eh, yëf gën a yaatu. kon lu am am solo ngir def ko ngir jihaad. moom da ko jàpp jihaad. kon moom da koy tëggul yonent bi rek ngir wax ay ay ay yu baaxam ngir wax. ngir ngir bëgg ko rek yem ci waaye da koy tagg ngir yeneen yoo xam ne euh, lépp njariñ la kon ci loolu rek dañuy jàll ci yi nga xam ne mooy isaat yi nga xam ne maanaam rafet rafet yi wala baax baax yi nga xam ne way way majaalaat yi nga xam ne euh, am na ci tagg yuntu Sëriñ Tuubaa doon tagg yuntu sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci yan majaalaat la la la la ko doon tagg <laughs> waaw ñu sant bu baax ci euh, laaj yi am na solo lool euh, loolu moom buñ koy xool lépp day mën nañ kaa tënk ci ci ñaari anam te mooy euh, jikko yi ak bind bi waxoo ak mar waraa waraa xalxan wa xulxan zahara xalxan wa xulxan zahara kon bu ñu xool euh, yoon yoon maanaam sëñ bi buy tàgg yonent alayhi salaam du génn foofu man ngaa xam ne bayit woowu li muy gàtt wala waxu jow li muy gàtt gàtt ëmb na mbooleem lu tagg tagg yonent lépp lu ñëwaat mën nga wax saraa la ci loolu ndax lu ñëwaat du génn mat du génn bind bi muy xalq baa xuluq muy jikko yi du génn ñaar yooyu bu dee ci bindu yonent bi alayhi salaam gis nañ ci gis boo xoloon ni ko bi yaatale wax lu bëree bëri ci melokaan yonent bi alayhi salaatu salaatu wasalaam ni meloon te loolu tamit bu ñuy xool ci histoire day mel day siñ bi foofu day tontu maanaam day tontu benn iskaaliya euh, ba benn jadaliya boo xam amoon na ci genre euh, al arabi wala al matahu fi genre al arabi te lool mooy booy tagg nit ci lan nga ko war a tagg booy tagg nit ndax danga kaa war a tagg ci ay jikkoom kese am dañ kaa war a tàgg ci aw yaramam ci ay bindam aw taaram ni mel daal ni bindam bu jekk taxawaayam bu jekk yooyu am nañu jàpp nit ki boo koy tàgg na ka war a tàgg ci jikkoom asimaat an nafsiya maanaam ñu mel mooy ak tabe mooy ak njàmbaare mooy ak fegu mooy ak maandu mooy yooyu boo demee ci wàllu loolu am ñu jàpp loolu am na ñoo xam ne euh, ndax dañuy jàpp ne nit ki yaram amul solo solo bu bari ci yi loolu la ñuy jàpp nit yaram amul solo boo jëmee ci philosophie loolu la ñuy jàpp yaram nit ki moom amul solo am sax ñu jàpp nit ki daa war de def tout pour jeexal yaramam maanaam pour pour daal bu mu jox jénn it kon booba nit ki amul di tagg nit ci yaram amul solo ndax te yaram day nekk loo xam ne mooy bind jikko yi ñëpp ko bokk waaw lu ñëpp bokk boo ci tagg nit amul solo ndax ñëpp a ko amee ñëpp a ko naa nangam nangam kon booy tagg nit li nga ko war a tagg mooy ci simaat an nafs imaan lu jëm ci mbirum xel jëm ci yu mel noonu ak ñawam ak tabeem euh, ak mba ak yooyu bu am na jàpp ne déedéet nit nga tëkk ci ci ci ci melokaanu yaramam ni mu mel ab taaram yu mel noonu donte nag tarkiis ci jëmmi euh, sifaat an nafs yow moo ëpp solo am ñu jàpp loolu waaye sëñ bi nag kon bu waxee loolu rek bu ak xalxan wa tontu na laaj ban ne kon ñaar yëpp mën naa am war ñoo jël benn waaye ñaar yëpp lan war a boole dana jamilul mahaya zakiyul xija jamilul mahaya kon tagg na ko ci aljasad daa rafet xarkanam kon loolu mbirum jasad la waaye tagg na ko ci mbirum uh, beneen côté bi muy uh, zakiyul xija ji ñëwam xel la kon loolu tamit tagg na ko ci asifaat an nafsi yi uh, kon bu ni xool bu dee ci mbirum jikko xat kaan sa tawasut fil qalbi jaali sutut day wax ni yonent bi aleyhi salaam ab naana daa nekkoon ku digg doom ci taxawaay xat kaan saa taw fil xat waaye jaali sutut daa nekkoon koo xam ne euh, ay cëram daa matoon daa matoon yi cër mu loo xam ne day ëpp mat lépp mat gi rafet wa kaana sabtul xasa bi xatani susu samim dañ ko waxee jeex ci diggante boobu xat kaan saa taw fil xat jaali sutut wala mu bi bil mufrati wala yëkkoon bi aadami nekkutoon ku ëppal waaye nekkutoon ku weex ku weexaay boo am daa ànd ko ñuulaay aadama walam yakun mutahama nekkutoon ku rëy ku ne fa nax walam yakun ko am ay laxam laxam daa funki daa walu nekk mukalsama bal faaxa kulla man sama min moom tamit aadami waaye kaane yutulu kulla man maa saahu fii kulli saman képp kum daan àndal di dox moo lay sut loolu ci ximtaanam la bokk kenn daw ko wa kaane waasin xatam yadxaku bi tabasumi maanaam bi daan maanaam daa yaatuwoon dënn waasin xatam daa yaatuwoon dënn ba daa yaatuwoon ab ëtt dënnam daa yaatoon xajoo ñépp yadxaku bi tabasum bu daan ree day muuñ mu ëppoon ci réeram yaftaru fii asnamtisaam kal barqi aw xabbil xamaam maanaam bu daan ree day muuñ muuñ rafet ba ñu yeex rafet ba mel ni pepp yu pepp yuur ba mel ni eh, melax weex taal leer nañ wa daxkuhu yajlu salaam ka surujum fi zulumi buy wax buy leer buy ree ree ji day neex ba ñuy weexaay bi day mel ni day leer nañ mel ni làmp boo xam ne dañ kaa taal ci biiru lëndëm xam kon boo xoolee siñ bi tasbihaat yooyu xam ne bu ñu àggee ci ay ni jamaaliyaat yi mën naa am dana ko ci indi lim lim wax euh, bu ko defee tamit waccuhu mu dawwaru kanam gi daa mel lu kuron waaye ni kuron bu ëpp woo xamiisun azharu biir bi daa woosoon woos mooy nikkutuñ ko am biir waaye ko azharu ko rafet kanam la woo bahiyun maanaam ko taaraloon la asmaru ku weex la weexaay ba ànd ak xongaay maanaam weex mi nekkutut nekkut lu ñuulaay mooy waxoon woon wekkum bi aadama waaye mu asmar la te mooy wax bi yaaduhu musharrabun bi xumrati boo xam daa ànd akum ñuulaay ratul takallam maanaam buy wax wax ji day diib du nekk ku bar te lu mu wax tamit da koy baamtu ka annama saa fi xaddihi lmaxdud bi maanaam lex boo xoolee daa xongoon ci lu mel dañ cee tuuru ndoxum wurus ngir taar bu mu taaru woon te tax rafet lool ba kaana sabtul xasa maanaam tamit daa nekkoon ko jekk taxawaay wala daa nekkoon koo xam ne ba tey eh, ab xongaayam maanaam daa matoon ay cër ba kaana sabtul xasa ay yu mat yu toll lépp maa loo xam ne daal sikk lay doon ci moom kaamilu usnin ab noppam daa matoon addaxajum bëtam bi li ci war a ñuul daa ñuul kukk wa asnab am ndoxum bañ ma fallaj daa nekkoon ko am sàkkar yàlla wa ashkal maanaam askal mook bayaadu musharrab bi xumrat ñoo bokk firi maanaam wa mooy comme weexaay bi daa ànd ko xongaay wala wa ashkal am ñu koy firee ba tey ni mooy koo xam ne bët bi daa euh, weex walla daa xong xong ba ca jekk wax na ni xongaay bi ñaar la am na xongaay boo xam ne moom sikk la waaye bu xongee ca na ma war a xonge loolu ab taar la mooy xongaay boo xam ne daa xong ca na ma war a xonge ëppul yeesul mubtahijulocum wu xumal kon gis nga ni muy melal yonte bi di ko tagg ci ay melokaanam ni mel xam booy xool day mel da ngay jàkkaarloo moom te loolu mooy taswir bi ni mu koy taswire day mel ni te loolu day nekk lu am solo ci waay ci adab maanaam te bokk na ci lii maanaam ci xasaay si nga xamee ne moom la dañuy xool nit ki mën naa way mooy mën na taswir dara maanaam mën a mën a imaginer dara di ko wax melokaan ba boo koy melo nit day mel ni nit ki dafay jàkkaarloo moom léegi bu ñu ñëwee ci jëmmi eh, meloog maanaam jëmmi jikko yeeg yu mel noonu moom bu ñu xool tamit moo gën a bari ci xasida yi sëñ bi tey li ci gën a yéeme mooy buy buy tagg yonent bi alayhi salaam nii waar mooy tudd ak turam dafa naan Muhammad ba Ahmad waaye li mu wax mooy nixmatu farxatu baabu naim siraatul mustaqim hudal ilah sayful ilah xisbul ilah baabu baabu nada muurlin ida laysil ida jaalit du jaa muskina saaki bi suñu baagi muskila xaaki si na ay maanaam li mu tàggee yonte bi yëpp lu ëpp ne wàll mu jaar ci ay kii waaye da koy melal ay melokaan yu yu yéeme yu doy waar loolu moom xam naa bu ñu ci duggoon maanaam mhm. loolu rek daay doy waxtaan maanaam jëm si bi majaale ñi nga xam ne moom tagg waaye bu ñuy xool tamit am na ci beneen côté boo xam ne tamit tagg na ci yonante bi te loolu bu dee mu ci fànn yi moom tudde an nasib an nabawi te mooy wax so cofeel gi nga xamee ne moom la moo dox digganteem ak yonante bi alayhi salaam yasuuni mawti wa ayni lam tara walam aral madinatal munawwara ak yeneeni mbir yu bare bari wax ci diggante cofeel nga xam moo dox digganteem ak yonante bi yëmm ci cofeel googu day dem bay tagg bay bëgg lépp loo xam daa tax ci yonante muy suuf sum tëdd arjo bi raxmati muxtaadi sayidana zawri madinatuhu daaru rayaxiin daaru mata maa yasruha sairun abana yasante yet daaru daaru xaq wa yu mu ci day bëgg xeetu yonte bi alayhi salaam xut ummata mustafa xammaa yu jur luhum si la ibaadaati xut ummata mustafa xammaa yu jur xut ummata mustafa xam bari na yu baree bari wax di ñaanal yonante bi fi innahu xeetu yonante bi fi innahum wa in asooka yaa ahad li xaflatin abshiruu bika xablu nab daanu bam bam bam jeex yu mu ci tamit di bëgg saxaaba yeeg lépp lu aju ci yonante bi ba ci loxatul arabiya sax dakaa bëgg ngir bëgg gi nga xam ne moom bëgg yonante bi te am fi wax yu baree bari naan daa araam ci moom muy bind baa muy wax ba àbbi ci ne yeneen làkk du làkk yoon làkku arabia te xam ne luxatan arabia euh, moo yeneen làkk ñoo yem ci benn côté li mu leen gën a mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak li mu nekk làkk làkku làkk làkku euh, luxatan alquraaniya waaye lu dul loolu rek moo ko yeneen làkk mën nañ jàpp moo kon li mu leen gënee wala ko suñ bi bëggee mooy li mu tax ko ci yonent bi alayhi salaam kon loolu mën kaa tënk ci tomb boobu loolu nag lu yaatu loolu loo xam moom rek mën naa waxtaanu boppam jërëjëf sëñ Saliou ci leeral yu am solo yooyu ci wàll yi nga xam ne euh, moom la sëriñ bi tàggee yonent bi comme ni nga ko waxee rek day mel dafa boole ñaar dafa boole beneen xalax wal xoox maanaam bindub yonent bi te mu doyoon waaye di mu waxaalee jikkoom ngir ñu mën ko roy ndax bu waxee ay bindam ba ba bañ mën dañoo jàkkaarloog moom gi ñu ko bëgg di gën a yokk di gën a dolliku waaye day wax ay jikkoom ndax bu ñu ko bëggee ba noppi bu ñu waxee aju comme dañ ko dañ dañuy sawar ci def mën koo doon mhm. waaye mu am lu yéeme lu ci am mhm. te mooy euh, taswiir boobu nga wax bi mu ci tagg gi mhm. nga xam ne day mën ne dafa janoog jëmm ji muy wax rek buy leeral bay indi détails yi tafasir di wax bët bi mi ngi mel nii ndoxam bët bi mel nii leex yi mel nii nangam muy lu yéeme yéeme loo xam ne sax mën naa dugg ci yi ràññale tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu suñ tubaa ak yeneen yi mën na mën naa mën naa mën naa dugg foofu waaye euh, maanaam li nga waxoon ci ne tagg gi mm-hmm. jàpp da ko jàppee liggéey mm-hmm. xidma mm-hmm. xidma yonent bi loolu rek euh, moo moo ko jaral ba muy wax usuree xalaat wala la ñu tafaraxa ñi ma dexi lasa ma di xas dafa bàyyi léppam ngir ngir ngir ngir tagg yonent bi ngir liggéey yonent bi te liggéey gi mu jàppee ko tagg tagg gi mu jàppee ko liggéey comme ni nga ko leer la muy lu am solo la kon rek euh, ngir ngir ngir jeexal yëf yi dañuy indi lenn rek ci jamaliyaat yi maanaam rafet rafet bi wala taar bi am ci Sëriñ Tuubaa tagg gi mu doon tagg yonent salaam ci buñ ci buñ ko jàgg barikàlla sax ni ko waxee rek moom am na solo lool sax xam naa tamit moom bu day nekk buntu bu yaatu boo xam ne hmm. mën naa nekk waxtaanu boppam jamaaliyatul madi ndax sëñ bi bu ñuy xool ay tàggam day mën a dugg ci moom mayu saadiman nekkul ko day wax nii di di nii di dem di dem waaye da ci sàmmante yu baree bari yoo xam ne bu xam nga loxran arabia xam nga adab xam nga balaax day nekk lu yéemu lool ci côté yu baree bari yooyu moo xam naa dama ci indi yenn rek ñu mm-hmm. jëm ci mbirum baat yi ak maxanaa yi boo ko ne ci jamaal yàlla mooy yi si bi ni mu yittoo baat yi muy tànn buy wax ak yonent bi alayhi salaam ndax xam nga eh, yonent bi nit ki boo koy tagg maanaam dangaa war a jóge ci sa maqaama yow fekk ko ci maqaama tagg ko fa waaw nit ki boo koy tagg boo ko tax takkee ci yow fi ka toll waaw boo ko taggee si niveau rek da ngay da tagg day day gàtt day des day suufe moo tax nekk lu jafe-jafe nekk lu jafe moo si bi mu tagg yonent da ngay gis effort yi muy def technique yi muy indi ngir loolu mën a am te loolu mi ngi tàmbalee ci baat yi nga xamee ne moom lay moom lay indi moom lay tagg yonent bi ni ñu ko waxee woon léegi mooy buy tag yonent bi li nga tur yi mu koy yi mu koy wax ay mushkin li saakin xun mu faxiir jabru kasi maanaam ay ay sifaat yoo xam ne ni waar muy tudd wax ahmad ba muhammad waaye al muntaha al mujtaba maanaam yu mel noonu lay wax ay mushkin li ay maanaam jaalin duda duja ak mooy yooyu ma waxoon xam bari na bari na yoo xam ne euh, niwaan muy tudd tur yonante bi salaam waaye baax di dana fexe ba lépp loo xam dañ koy bañ ci ab baat du ci am am na yoo xam ne booy jàng balaa dañ la koy jàngal bu amee ci baat rek du baax baat yu baax te loolu bu ñu xool ci téere balaa yi comme boo ci talxiis xas nii bind ko ba iidaax ba téere bari na yépp koy indi muy tanaafur muy xaraaba muy xulf xulf wuuteeg alwat alxarabi dana fexe ba yooyu du ci am baat bi mu indi nekk baat bu yomb xam waaye yomb gi mu yomb xam nag du tax mu nekk baat bu bu bu bu teer a teer dana yomb xam ci boo xamee waaye nag dana nekk lu baat bu am maanaam bu am solo. Mm-hmm. bu yu baree baree baree euh, baree. léeg-léeg sax benn baat rek mu mën ci maxu dalaala abdal jalaala dalaal riir riir gi bu mu waxee rek dalaal riir mën naa nekk riir gu ne. maanaam bal dalaal ci boppam day bari ay maxnaa yu bëree bëree bëree bëri maanaam jëmmi euh, tanaafur lu am ci baat yi baat bi muy indi du nekk baat boo xam ne day naqaree wax ci misaal li ñu tuddee xuruful boolee ci benn baat baat bu nu wax leen day yomb da day jafe book waa wax leen siñ bi nag boo xool am bi ne néewaa na loolu sax lu mu néewaan waaye gis ko ci moom loo xam baat boo xam ne boo ko wax da ngay sonn xale min am na sàmm arabun ni ko ansag naa ko mën leen eh, taraktuha eh, taraxal xam wax gi sax bi mu day jafe te loolu suñu baat nga xamee ne moom la moom la dajale moo waral lu mel noonu eh, ak yu naa mi maxnaam itamit noonu la maxnaam yi mi indi day nekk max naa mu leer moo xam lépp loo xam dañ koy bañ ci maxnaa du ci am te fa baat day làmboo fasaaxa làmboo balaaxa yooyu yëpp da ciy am waaye bu ñu xooloon ci xoloon balaa loolu bu xam ne waxtu wi xam nañ waaye kon loolu tamit bari na moo nii la indi na ci yu baree baree bari waajaloon naa ko waaye waxtu wi daa xat bayaan la moo xam badiyaan li aj yooyu yëpp boo xoolee leen lu nañ cee wax lu baree baree baree bare waaye xam naa ginnaaw waxtu wi moom xam naa kon dañ koy tënk foofu rek waaw bu ko defee jërëjëf sëriñ Saliou ci leeral yu am solo yooyu waxtaan wi am na solo te it leeral nga lu bare bari mm-hmm. ci diggante euh, tagg yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. ak dëppale ko yonent bi tubaa Touba mm-hmm. maanaam naka la ko Serigne bi daan taggee nga leeral ci euh, yi ko poussé yi ko yóbbee muy tagg euh, yonent bi leeral tamit yi ko ràññalee ak taggam ak yeneen tagg yi nga xam ne baaxoo nañ ko gis wax it yi mu ko tagg ak jubluwaay yi mu am ci ci tagg yonent sallallahu mm-hmm. waaye tamit leeral lu am solo ci yi nga xam ne mooy rafet rafet yi mm-hmm. wala jamaaliyaat yi nga xam ne moo am ci ni muy tagg yonent sallallahu yu bari yoo xam ne mm-hmm. yow yow boo koy jàng day mel da ngay yëg leneen danga ngay yëg loolu nag moom xëy na xëy na layan la muy lu am solo waxtaan wi am na solo ñu ngi lay sant bu baax a baax di di ñaan suñu borom mu yokk xam-xam bi loolu wér gi te it gën leeral baat bi waaye di sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon teewlu ak di ñu topp ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne kuréelu liggéeyal ku tedd ki ñoo koy amal di ko waajalee bis bu tedd bii di suñu kanam di ñaan suñu borom mu yóbbu ñu ca mm. ñu ñu defee ko ni ko sëriñ bi bëggee woon mhm. mooy tanzimuhu bi sunnati mhm. ndax bu ñu ko defee rek mhm. la mu ca diggee dinañ ko mu yaxuduna li jannati waaye bi ziyaadul minnati suñuy xewal dina gën a bari ci wàll yëpp kon nañ ci ak jàmm kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa muxaddamatul xidma ak seen télé bii di ci ànd gi ñu ànd kuréel gi liggéey bi eh, ci ni mu gën a matee di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.